non rien n'a changé parce que dund bi tey la gën a cher yo changé wul bi yokk na euh, la justice est toujours instrumentalisée parce que am na ñu ñuy tëj prison si ay délit de d'opinion mhm. ay délit d'opinion loolu mu ngi am ba léegi les postes yu doon wax ne appel à la candidature amul da nga mais justement ñu taxaw ci poste yi ba mu ko permettre euh, quand ils ont fait euh, la nomination des ministres on a on a applaudi on a salué mais après euh, les directeurs généraux c'est plus des militants issus de leur parti Pastef et souvent des jeunes yoo xam ne sans expérience am na njàpp ne atu am na njàpp ne aussi c'est un peu risqué bu ñu leen dénkee lu mel ne ay ay ay SN HLM ay APIX

amuloo benn expérience ci affaire infrastructure ñu lay jox loo xam ne mel ne SOGIP mhm. nga war a gérer infrastructure yi nekk jam ñaaju donc euh, vraiment lu ñu doon kaas moo ko ne di am c'est-à-dire les voitures de luxe continuent à tourner Sénégal les ministres yu fi nekk mhm. lu ñu dawal Audi A8 c'est des voitures. c'est la même pratique qui continue en fait. plus de cent millions même pour ce qui est des ressources amul lenn loo xam ne wàññeeku na. dara changé les DG et autres salaires yi tout ça on n'en parle pas. rien n'a changé mm-hmm. donc rien n'a changé malheureusement on fait la chasse chasse aux sorcières on nous divertit on nous manipule comme d'habitude. Mais